loo wax wax am lu sa des parce que àddina moo tëddee noonu te aussi environnement bi ñuy dund xel doomu aadama dafa yaatu comme ni jëf yi bi nag déjà li mu si wax noonu la demee mais opportunité bi nga xamante ni Sénégal am na ko ci Mauritanie mooy déjà benn pays la woon du ñaari pays tubaab yi ñoo ñëw ba diviser ñu te loolu jamono dox na ba war nañu mën delloo si loolu Mauritanie yi xamee ko noonu Sénégalais yi xamee ko noonu papa baal ma rek euh, loolu bokk na ci ci ci li jur li nga xamante nii moom mooy problème mu euh, licence si diggante waaxi Mauritanie ak waaxi waaxi Gendar bi muy Sénégal waaw dèjà li nga jur mooy soo gisee problème bi am euh, cette fois ci démb bu jëkk maanaam demoon Mauritanie liggéey fa dafa meloon ne biir Sénégal nga nekk mais nag dañu dem ba benn jamono comme li mu wax intérêt yi dem ba nga xamante ne kenn ku nekk maanaam bi nu daggee frontières yi kenn ku nekk da nga taxaw pour développer sa réew déjà Mauritanie it mënuñu bàyyi ñu ñun mënuñu ko bàyyi mais l'essentiel li am solo mooy kenn ku nekk maanaam li nga xamante ni war nga ko am si sa morom maanaam ñu jël ay accords yoo xamante ni kenn ku nekk daa ko respecté xam loo mën a ñàkk ak loo mënta ñàkk mm-hmm. loo mën a bàyyi ak loo mënta bàyyi mm-hmm. ñaari population yi tam benn lañu mm-hmm. moom mii di wax ak yow nii am na ay mbokk Mauritanie am na ay Mauritaniens yoo xam ne seen ndey ngi fi seen bàyyi ngi fii kon daanaka loolu benn pays kon li si des nag su ñun la des ak suñu bopp ak suñuy mémoire l'essence bi boo gisee gaalu mbaali kese am ka dèjà dafa nekk loo xamante ni dafa amal population bi yëpp njëriñ dèjà li ñu bëggoon nag mooy ñëpp mën ka am mais Mauritanie nag c'est un pays boo xam ne pays souverain la bu ne jën wi laay mayee man moom man maye jën wi loolu itam da nga koy nangul ba pare nag continuer waxtaan yi euh, que euh, la licence euh, on l'a à partir d'un quota de cinquante mille tonnes cinquante mille tonnes Sénégal Du coup, on a allégé le paiement de ces licences à ces pêcheurs. On leur a dit de payer en deux tranches. D'accord. Une première tranche, 670 000, deuxième tranche, 670 000. Ce qui fait que euh, les trois mois, au 31 mars, au 31 mars, les 670 000 vont prendre fin. Maintenant, il va falloir renouveler, renouveler, encore, payer encore 670 000 pour compléter Euh, le reste kon li mu doon ñaan itam ñu ngi koy dellu di ñaan ñu gën a waxtaan ak Mauritanie ba licence yi ñi nga xamante ne am gaal am nañ yeneen gaal it mën amee noonu loolu dana nekk loo xamante ne lu am solo lay doon. Euh, très bien xam nga président Diomaye Faye vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla dañ koy sax dolli ñaanal yàlla. di ko ñaanal Ousmane Sonko mi nga xamante ni mooy premier ministre bon li ñu koy wax nag mu bàyyi xel bu baax Sénégal sax laay wax mais particulière Gendar xëy na nag réew mi mooy yilif ñëpp mais kenn ku nekk ak say problème dëgg la licence yi nag alhamdulilah jàpp nañ ni moom licence bi mënatuñu am problème ba du ñu ko jox ndax intérêt bi si yi am intérêt boobu lañ ci am te am na yeneen licence yoo xamante ni Nouakchott moo koy jox ay doomu bopp su leen ko joxee ñoom ñooy ñëw fi ay gaal ñu nappal leen kon président Diomaye dañu am itam beneen problème boo xamante ni daanaka muy bël bii bël bi moo gën a nekk suñu problème bu ñu ko regleele lépp suñu problème bu doon fukk réglé waaw loolu yëpp loo ñu fi nekkoon seen dara seen dara dafa jubul et seen stratégie politique bi ñu amee woon ñoom taxawu ñoon pour defar mais dañ doon xoolee nu ñuy life nit ñi mais nekk na fi pour di liggéeyal Sénégal parce que ñàkk liggéeyal Sénégal mënul weesu bi si la dee sama rak ku toog fii rek am nga ci koo xamante ni fi la dee mënul ñàkk heure bu ne bërgi démb rek am na koo xamante bu fekkente ne am na dara lu ñu koy lancé foofu mu nekk sunu action maanaam ONVS bi nga xamante ni ñoo bokk deex gi ONVS ñoom Sénégal war nañu wañaar seen loxo rapidement ñu liggéeyal ñu bël yi parce que bël bi dafa sensible ci ñun mënuñu di liggéey te bu ñuy liggéey dañuy mel ne kuy jéggi siraat suñuy njaboot yoo xamante ni exemple am na ñoo xam tey ñu ngi génn extérieur dem Europe di liggéey mais amuñu choix pour dem mais le problème mooy bël bi la ñu ñemeetul mhm. parce que ñetti xarit bu ñu juddandoo si dëkk bi mhm. ñaari ñu leb si bël bi dee mhm. kenn ki dootul am confiance si toog fii loolu moo waral xale yu nekk dem léegi li ñu mën a dimbalee moo ñu defaral nu bël bi te que li tax ñu am ci ñoom yaakaar ay nit lañu

loolu dafa poser ay problème boo gisee nag nit ñi taxaw ci xeex bi pour ñoom ñu dem au pouvoir c' est parce que dem nañu ba gis ni maanaam direction bi ñu jaar ak seen programme arrangé na population arrangé na ñëpp quoi kon ñu ngi koy ñaan foofu mu nekk ak naataangoom boobu di président Mauritanie bi maanaam ñu gën ñu dimbali ci bël bi envers ñu taxaw si bon licence yi daal li ma ci xam un an la ñu ko maye mais chaque trois mois licence bi day jeex ñu renouveler ñu def renouvellement bi c'est comme ça qu'on a on leur a fait le paiement en deux tranches. Ce qui fait qu'ils sont en train de renouveler la deuxième tranche. Mhm. Mais c'est toujours dans la même, c'est toujours la même campagne de 50 000 tonnes. Alors que bon, les 50 000 sont loin d'être épuisés. Mhm. Euh, je peux te préciser que je ne suis pas euh, la personne indiquée en fait pour parler sur les licences parce qu'il y a un inspecteur de dépêche ici qui est euh, la personne vraiment indiqué pour euh, donner ces informations. effectivement, il y a des licences de pêche qu'on donne au, Sénégalais, la Mauritanie. a duré euh, fait ici euh, six mois, mois. J'étais en j'étais en Je suis affecté tout récemment au mois de novembre. Mais ces licences de pêche ont, duré ici. Voilà, c'est qu'on a donné les licences depuis le 15 janvier donner ses licences à ses pêcheurs pour cette mm-hmm. année-ci. Mm-hmm. Actuellement, on est à 22 mm-hmm. 000 tonnes, ce qui reste, il reste à peu près une vingtaine de tonnes encore à pêcher d'ici mois de, au mois de, au mois de juillet. C'est limité aux scènes tournantes. Exactement. La Mauritanie a accordé 250 licences au bureau. Voilà, donc ça veut dire euh, tu sais que chaque selle tournante a deux pirogues. Il y a une pirogue de pêche qu'on appelle euh, garumbal et une autre pirogue qu'on appelle galtop. C'est-à-dire qu'il y aura 500 licences. 500 hmm? licences. Mhm. Mais euh, dans l'accord, euh, des les Mauritaniens ont dit qu'il y aura 6% qui vont débarquer en Mauritanie. Les 6% vont correspondre à 15, euh, à peu près 15 pirogues, 16 pirogues. Donc chaque, on les, a divisé en groupes. Les 250 pirogues, on les a divisé en groupes. Voilà, 17 groupes. Donc chaque, liste, chaque groupe doit aller débarquer en Mauritanie pendant à peu près 15 jours. Comme euh, comme c'est limité, mhm. comme c'est limité à 250

on a voulu en fait un peu organiser mhm. euh, de sorte que qui pour nous donne licence de fait que y a matériel un bon pour la travail pour chacun quoi dans le moment voilà ni ni am ni am voilà ni ni am ni am mais y a pour nous dépend aussi si négociation les gars négocier pour gars négocier aussi ni legui 500 500 centres dans licence mhm. bon les gars ne y a pas large quoi les gars large mais lépp mi ngi dépend si négociation yu gars yi négocier na si mois de décembre bi. par trois mois lay def ñu def ko par tranche. chaque trois mois dañuy dolliwaat ndax ñoom contrat bi un an la. temps naa si ay sept cent mille yooyu jàppatuma ko daal actuellement. mais déggoon naa ci loolu. déggoon naa ci loolu mais des na ma leer. léegi un an rek boo ko divisé par trois mois rek. loolu daal laa ci xamoon. maanaam boo gisee muy arrangé ñeeni ñi du arrangé ñenn ñi. am na si ñoo xam ni. maanaam comme ni mu doon fayee un an bi mënuñu ko. léegi bu dee nag ñetti weer la. ñu def 700000 wala 600000 ñenn ñi dinañ ko attan. a parce que yenn gaal yi ñoo mën yenn gaal yi. ndax yenn gaal yi ñoo ngi dem géej mais seen wërsëg demeewul noonu. buñ ko defee ci anam boo xam ne ñëpp dinañ mën jot ci licence yi. gaal yëpp. maanaam dañu koy woyofal. bu ñu ko woyofalee. nit ñëpp mën ci am. d'accord. parce que fii gaal yi yëpp yemul. Mhm. am na gaal yoo xam ne macha allah tubaar fakal yàlla defal na leen xéewal lu ñu bëgg lu ñu song rek dañ koy daan. même na ci gaal yoo xam ni bala ñuy dem géej sax problème mu frais la am pour lu géej. xam nga kon kooku nga koy fayloo licence un million problème na fa am la ndax koo xam ne essence bi ngay jënd quatre cent mille pour nga yóbbu ko problème la da ngay da ngay lijjanti ba sonn soo koy am ñu ne da ngay fay cash un million pour mën a jot sa licence xam nga kooku beneen affaire la te bu ñu waxantee dëgg ngir jëmm yàlla rek maanaam dëkk bi ñu fi nekk ñu baadoo lañ géej ji rek lañ yaakaar mhm. bu géej gi neexee rek mu lépp neex mhm. mais bu géej gi taxawee lépp taxaw waaw ndax fii moom war sa manqué licence ndax xam nga tax ndax Saint-Louis gi ñu dëkkee zone bi nga xam ne moom lañ dëkkee ñun mhm. maanaam li ñu am ci géej ji moo barewul maanaam ñun dañu gànnaar daf mu jógee loolu naa shot te jën wi li ci ëpp booru naafsul bi lay dund dafa lay nekk dafa lay noppaloo xëy na léeg-léeg lay bare ba tuuru fii rek gaal yi génn si bis bi teeraat si ngoon si dafa fekk dañu dab fii jën yi maanaam daf ñu ëpp ay grotte maanaam boo ko déggee mooy xeer maanaam fu jën yi mën a nene waaw jën jën ci place xeer lay nekk dëgg la si zone bi barewul xeer mais bu dee zone gànnaar bi dafa bare xeer maanaam mooy grotte yi nekk ci biir géej gi yi nga xam ne su ma la koy expliquer maanaam lu mel ni coof ak cibaaro ak jën bu ñuy wax bande waaw fa la ñuy dund mais jën wi ñuy laaw jënu kaw ndox la mais jënu kaw ndox maanaam du tàgg fu dul ci kaw xeer mais boo gisee géeju Mauritanie gën gën gën géeju Sénégal comme zone bi Saint-Louis jàpp fas japp côté car manam daf ko daf ko mën ci ay grotte mhm. geejëm mo grotte mhm. té di jënd di dundé manam muy ñax fofu la ëpp ñanc bu bokku lu yoss amna benen jënd bu ñu wax yoss ya boy bu sew eh, la mu tuti quoi d'accord ça veut dire sardine petit les petits sardines là mom la jënd bi dundé jënd bu ndaw moy yoss ci wolof mom la wolof yi wax yoss